alors ñu ngi nii togg ki nga xam ne ne jaxatul ñu koy présenté Sénégal jaxatul ñu koy présenté aussi monde entier bi muy Mass Bidew Chéri Bidew nuyu naa la. yaa fay naa la. ci loo nekk. sant yàlla moytu ak muñ. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah ma sant yàlla baax a baax. mais ana Bidew. Bidew waaye mi kër ga de. mi kër ga. waaw waaw mi ngi taal reer bi. mi ngi taal reer bi bien sûr. à neex na donc euh, mass vidéo le lu toll euh, euh, programme Ngone donc nga bàyyi sa donc Ngone Mbaye il yow nga ne tey da koy gunge ci programme donc euh, lan moo waral loolu. waaw Ngone. mille moo ñu boole. ci mille ba nga mais machallah, allah man ak mel na comme ay magarak Ngone nekk nit ku baax bi laay éviter éviter dañuy waxtaan ci lu bëri. am na sax incha allah ay projets yoo xamante ne ñu ngi ko waajal à l'avenir mais yegg seegul kooku nag bu wootee lépp lu ñu bàyyi woon ñun artistes yi dañ koy bàyyi ñëw wuyu si ko parce que ngóone képp ko xew la mu demal la wala tey moom moo woote incha allah gis artistes yëpp dañ ko teewal parce que loolu moo ko liggéey ci aar bi donc mën naa xam aussi ci personnage bi nga xam ne moom nga joué ci biddéew mm-hmm. euh, ni nga ragalee biddéew noonu nga ragalee sa jabar wala biddéew mooy sa jabar non mais xam nga benn affaire la te question mhm. ragal sama jabar sa nga nit ki boo ko bëggee da nga koy ragal dëgg la yow boo bëggee sa copain mhm. ak sa jëkkër da nga koy ragal parce que mbëggeel gu bëri moo waral ma ragal ko loolu la rek la <laughs> alors euh, waa vidéo yi ban surprise lañuy préparé donc saison bi nga xam ne mooy ñëwaat donc lan lañ lan lañ lan lañ mën a xaar ci ñoom ah mais ñun nag xam nga nag euh, ñun suñu affaire and ak wax ñun chaque année suñu affaire and ak wax xam naa daal bu ñuy ñëw day ñëw ak doole ngeen ñëw ak doole moo tax ñuy làqatu lu yàgg da ngeen féroce daal non dañoo soxor. sa di bëri doole <laughs> lépp dañu àndal <laughs> mais en tout cas daal incha daal ñu ngi ñëw. alors merci beaucoup Mass Bidew lañ fi amoon ah donc gars yi nee naa leen euh, tey ji programme xew ki nga xam ne mooy Ngoné Mbacké du yomb ndax façon artiste bu nekk dinañ ko fi gis tey te façon artiste bu nekk dinañ leen ko présenté ay ca ci kanam.